Barnya si Pak Ojan. Ah, seni Barnya si Pak Ojan. Ini sempena si Pak Ojan. seni sempena si Pak Ojan. Ah, ini sempena si Pak Ojan. Jember Sipojan. Ah. Abu Bundangan. Abu Bay Bundangan. Ah. Babu Sipojan, Babu Bay Sipojan. Eh, lava dendangan. Lava de kerjap. Babu Bay Sipojan, Babu Bay Sampuna Bejen. Wow. Wow. Eh. Faye si Paw Diagne Masrul John Masrul John nasib Ojan Masrul John nasib Ojan Wow Rumbun Sampunnya Bejen Wow Wow Wow Wow Wow kasaba munde an kasaba sipa o jan al kasaba munde eh al kasaba sipa o jan waaw waaw al kasaba munde waaw jël na butéelu soow. eh alkasam amul waaw. la ilaha illallah. Cheikh de waaye yaakaar naa ne ci mooy borom mu borom olof yi leer maa la ko wax tey de wax naa ko waay amiin waay amiin wax na fi olof champion dem na daanaan dem na borom jam ñaajo waaw waaw waaw waaw Ousmane Oumar Lo ah Ousmane ma ñima eh, eh. Ousmane ma Ousmane Boumar Ous Boumar Lodj ngi noonu waaw waaw samp na waaw waaw borom si Pao Dian eh. si si

waaw o yaaje si bo o jal borom a ngi noonu borom simal a ngi noonu borom si bo a si bo o jal yaaja bu simal roga yaja simal Modou Pa Dali borom Joal ah Modou Pa Modou Pa Dali borom Joal Modo pada ali si Paujan. Modo pada ali si Paujan. Ah, modo pada ali si Paujan. Wow. borom jiwalaa ngi noonu Modou Pa Dali bandit 40 ans bu Joal di ziar waa Joal rek di ziar ah di ziar Yirim rek waa Joal yee nekk ah Yirim sama doomu Doa doomu Joal bang ini, ah mau Pa Daali borom Joal yang punya jor. ñoo yang waaw yang yanku si Paw Jan ah yanku waaw papa Yankou eh, borom ñoo joor rek noonu Yankou Yankou samp na bëjën waaw Yankou si Pawa Diagne ne Grand Yoff tere gaal gi aha

Ahmed Aïe. Hey, hey. Gasipa Ojan Guy gi gagné Gasipa Ojan Guy gi gagné Gasipa Ojan Ha

waaw Sélébélé nekk noonu Sélé ngi noonu Messé ngi noonu waaw Messé ngi noonu waaw waaw Messé ngi noonu borom Sénégal champion d'Afrique te léegi noonu champion di ko wooyee Messi waaw waaw di ko wooyee Messi ñi di ko wooyee champion d'Afrique waaw waaw champion mag bi waaw ndaanaan bu mag baa ngi doon waaw waaw ndaanaan bu baa ngi doonu gaay yi naan kon Messi gaay yi naan kon champion d'Afrique bi doomu Petite Côte baa ngi noonu waaw waaw borom a ngi noonu siyaaka a ngi noonu waaw waaw borom ngi noonu waaw Siaka ngi noonu oxey juura Siaka xa fiya dege xey juura a borom mbuur a ngi noonu a borom mbuur a ngi noonu waaw Siaka Fall borom mbuur satu giran coor baa ngi noonu waaw waaw waaw waaw waaw Ngor ngi noonu waaw Njangar doomu Mbine Japp a noonu waaw mbër Fëlinga ngi noonu waaw doomu Mbine Jàbbaa ngi noonu hee Ñagara ngi noonu dara mbañi ka si hee Kalmu ngi noonu daay daan Kalmu naan dara hee apa juga si Bojan? Wow. wow. Kenapa juga Gidono? Kenapa juga si Bojan? Ojan? Wow. Kenapa juga si Bojan? borom mara ngi noonu doomu yaayu borosa ngi noonu magu borosa ngi magu elbande ngi noonu waaw oho waaw ponto ngi noonu borom ponto ngi noonu eh borom ponto ngi noonu borom ponto ngi noonu eh, borom ponto ngi jam téré gi noonu waaw waaw jam téré bu la laalé ci géej rek da ngay téré hé hee njam téeri si o jan jan bu doy war la tudde bopam jam téré jam téré dama dugg bi gënaate hé jan bu doy war la tudde bopam jam téré ni sam jam téré ngok waaw waaw borom ponto saare na ngi noonu loolu mooy rôle Tambay waaw waaw bay da ngay mën ligay jam deere ngi nonu ponto saren bi waaw waaw bu waree rek ponto yëpp jóg ndeysaan di ziare ñoom Ousseynou ponto ah ñoom Saliou Pouy bàyyiwuma ke ah waaw doomu ganjay baa ngoog rak rak ci samp yoo boobu ambulance rajaxe ngi noonu rajeex a ngi noonu eh borom gàncax a noonu rakk ci ambulance waaw waaw maa rek sama nijaay boobu waaw waaw rajeex noonu. Jaxaay borom Gandiaye mi noonu deuxième combat Abdou Ndiaye Lissa Ling troisième combat El Hadj Biram Ndiaye waaw waaw gu Mamadou Diop a ngi noonu Radiakhé ngi noonu ragu ambulance bi Balla Gaye Babacar Diouf Ndik Sène Malick Diouf Réfane Malick Diouf Réfane Babacar Tine Babacar Tine Ndolol ak Ada Boy Bawol Babacar Tine Ndolol Ada Boy Bawol waaw ci poids lourd benn tour dina xool image yi gis nañu noonu moom moo daan donc Laban Ndiaye moo daan Mamadou Fall. Babacar Tine ko doon Fall yaram waaw Modou Ndiame Terry daan na ko waaw Modou Ndiame Terry daan na ko Modou Ndiame Terry daan na ko waaw Isaaka war na ko ndombo Isaaka génnee na ko waaw Isaaka génnee na ko Isaaka génnee na ñagar waaw Mamadi Njaay bébé uus bébé uus Mamadi Njaay bébé uus Mamadi Njaay bébé uus war na ko ndombo Bébé Ouz daan na Mamady Ndiaye Bébé Ouz daan woon daan na Seyaba Fall doole doxul jàmm waaw na ko ndombo sele daan na ko waaw bien fait bien fait sele daan na ko Ada Boy Baol Grand Mbagnick Grand Mbagnick Ada Boy Baol Ada Boy Baol Grand Mbagnick Ada Boy Baol Grand Mbagnick Ada Boy Baol Grand Mbagnick Grand Mbagnick daan na ko Grand Mbagnick daan na Ada Boy Baol waaw waaw Done. gaan ak gaan bu mar fa faxo ah, alkazam munde gaan alkazam e alkazam gaan waaw waaw gaan alkazam gaan alkasam gaan ee gaan daan na ko na alkasam waaw waaw gaan na alkasam bu munde sible na jigéen Papa Ngane ak Boy Bougane Boy Dione Boy Dione Bougane Sok Sok Sa Bougane am na deuxième avertissement waaw arbitre bi sifflé waat na Ganda pa Ba ak grand Mbagnick. ñi nga xam ne ñoo jàppale Mbaye Colom ci li nga xam ne mooy bés bi ñu ngi gërëm Yankuba ñoo joor grand Mbagnick di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye nag buñ ko jógee nag dañuy gërëm dañuy gërëm ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci programme bi ku mel ni Samba Yaamay Ismaïla Ndiaye ak eh, ñi nga xam ne ak ki nga xam ne nag ah mooy mooy di boor ah. bi nga xam ne jàppale na Ndeye Kalem ci lépp koo xam ne Ndeye Kalem taxaw na fa mu ngi ciy jàpp. grand Mbagnick Yankuba Yankuba Yankuba sa grand Mbagnick. atia. Yankuba daan na Yankuba. grand Mbagnick daan na ko. grand gaan bu mar faa fa xob waaw waaw mook poti or mook poti or mook poti or di gaan bu mar faa ak poti poti or di demi final raw gàddu yi waaw Poti eh, Ordi wati na ko Poti Ordi wati na gaan waaw waaw Poti Ordi wati na gaan Sokh Sokh Sokh Sokh Sokh Sokh ak Modou Diam Terry waaw ah, Pape Ndiaye Sokh Sokh am na avertissement

يا مهاجروں Papa Ngane Papa Ngane Modou Ndiam laa waaw diggante Calme Ndoor ak Sélémélé dañu ci quart de finale yi Sélémélé Sélémélé Grand Mbagnick Grand Mbagnick daan na Sélémélé waaw Sélémélé Grand Mbagnick daan na ko waaw Karamba Yugdan Nago. Abjay Sok Sok, Karamba Yug demi-final. Wow, demi-final Kualur. demi-final Kualur. Pape Ndiaye Sokh Sokh Pape Ndiaye Sokh Sokh Pape Ndiaye Sokh Sokh wër na ko ndombo Papa Ngane wër na ko ndombo Papa Ngane wër na ko ndombo Papa Ngane daan na ko Papa Ngane daan na ko waaw Petit Ordi moo nekk ne ci ginnaaw ak olympique bu buñ waaw beneen demi-finale poids léger bi petit ordi olympique olympique bu buj ak petit ordi beneen demi-finale poids léger moo nekk lële bi sifflé na diggante Siny Bargny bopp maanaam ñaari numéro 2 final raw gàddu maanaam ñaari Pape na ko ndombo maanaam ñaari na ko Pape Ngom Manam Ñaali Manam Ñaali Pape Ngom Pape Ngom jóg na la raw gaadu Pape Ngom mën a ñaani Pape oh, raw gaadu Pape Ngom mën a Pape Ngom Malem Niani final raw gadu daan na ko Malem Niani daan na Pape Rajaxe ak Bébé Ouss deuxième demi-finale pour lourd Raja Rebebe Ouz officiel ak olympique olympique ak Sely Sely Bargny olympique Sely Bargny olympique olympique Sely Bargny olympique Sely Séni Séni Mbargne olympique Séni olympique Séni olympique bu mujj olympique eh Séni daan na ko eh daan na ko ah daan na ko oh Séni daan na olympique. poids lourd diggante Bébé Ouz ak Papo Ngane Sokh Sokh. waaw finalu poids lourd diggante Bébé ak Sokh Sokh Papa Ndiaye ak diggante Bébé Ouz finalu poids lourd Bébé Ouz Sindia Papa Ngane Wow. Pabonggan ang BBUs. Pabonggan BBUs. BBUs Pabonggan. Eh Hey, Pabonggan. Pabonggan BBUs. Salut, Papa Ngane Sokh Sokh Papa Ngane Sokh Sokh Bébé Ouss Bébé Ouss Bébé Ouss Papa Ngane Papa Ngane daan